nga daal di jaaxle naa ko di wasalaatu wasalaamu ala la nabiya baada sunu mbokki julli ji yi fi teew bi suñu mbokki këri diine yi ñi ko suñu kilifa bu tedd ga daa waxe yéen ñi nga xam ne fas bu billaahi waxudu dangeen fa fekk rek moo dem tedd kon ñi ngi nuyu mboolem suñu mbokk yu tedd yi rawatina suñu wax ci këri diine yi bàyyiwul kenn nag li ñuy wax jusuum layata gis lu nekk lenn dafa dégg genn kilifa mu wax wax bu am mu ne bu ñu waxati këri diine yi dañuy wax këru diine yi këru diine ji xam nga bu ma dégg ma wax bu yóbbu waaye dégg naa kilifa bu fi di ko wax li ñu bokk li ñu war a mooy bu ñu santee kenn tudd kenn tudd na ñëpp kon nag ñu ngi koy tàmbalee ci ñu bàyyi ko ca dëkk bu tedd ba bu Tiwaawan ci njabootu Cheikh Sidi Hadji Malick Sy ak ñu bàyyi ko Kaolack ñu ñu ñu ci waa kër Cheikh Alhaji Ibrahima ak waa maam Khalifa Niass ak ñu bàyyi ko Thiénaba ak ñu bàyyi ko Ndiassane ak mboolem imaam yi nga xam ne ci jiital Ahmed Dame Ndiaye ñoo mboolem xalifa général de Mbambilor ak mboolem këri diine yi waaye Ibadou Rahmane ñëpp ñëw nañ kon ñu ngi teg nuyoo bi ci loxol Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ñi nga xam ne moom ci délégation bi bàyyi ko teewoon te buñ ko tuddee mu tuddaale ñëpp. di leen yóbbante nuyoo ca sunu mag ja sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne tey ci dogalub yàlla moom la suñ borom teg yan ci loxoom te suñ borom wax ci alxuraan ne allahu alam xayis ngeen ci alam risaalaati mu wàcc ci ba ca sëriñ Pape Malick Sy mi nga xam ne moom sëriñ bi ñoo bokk lépp te ku ko gis rek sa dem ci mu fàttali la ko baas si ci Serigne Maodo si ibnu Alhaji Abdoul Aziz délégation ñu ngi ci yoon ñëw ba agsi nag ci ki nga xam ñi nga xam ne nag ñooy suñu njaboot di suñu lépp di sëriñ Serigne Babacar si ibnu Serigne Abdoul Aziz si atamit mi nga xam ne mooy suñu buntu ci kër gi kon ñu ngi koy yóbbante nuyoo di ko sant di ko ci taxawaayam ak yéeneem ak xolam ngir xam ne mag ñi moom àgg ci ñoo yómbut waaye nag wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatahum te yéen ñii ci gannaaw bu ngeen àndee moom it lépp daan rafet ba ci sëriñ Moustapha rakkam mi nga xam ne moom itam ni ma ko waxee woon démb xam nañ yaakaar ji sëriñ ba sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si ñi nga xam ne moo jiite délégation bi ni ma ko seeree léegi di nit ku baax ndax ku dégg mission waajuram ndax waajuram nett na ma ci jamono Cheikh Mahamadou Fadil nga tàmbalee ñëw Touba nett na ma itam fi mu tàmbalee Cheikh Abdoul Ahad ñëw na fa ñetti yoon suñu Abdoul Ahad doo ko ci jëmm kon moom lu ma sa xew Touba maa ngi fàttal keroog ba fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wàcceeb liggéey te sëñ bi xaar moo fa jëkk lu fi mës a xew ci yoonu moo fa jëkk moo fa wut te booba tële na ko mënu ko am nay ndaw waaye kenn mësu ko roy ci dara lu may jëmm kon moom yàlla rek ko mën a fay waaye moom mii nag dégg na mission waajur ndax màggal bu fi xew dana ñëw ànd ak mbooloo ànd ak teraanga joo xam ne day xam ne fii la dëkk lu fi xew itam dana bàyyi ay yitteem donte xat ànd ko ñoom kon ñu ngi koy sant di ko di ko ñaanal mission boobu bii nga xam ne mission bu diis la waaye ne xàllal nañ leen ba jaar jaar dëkk jërës yàlla ko yàlla àggal di nuyu itam Serigne Sidi Ahmed si mi nga xam ne at mu jot moom la fa Serigne bi daan yabal kon lii dafa dolli ko dafa mel ne Serigne bi dafa ñëw tey si Sidi Ahmed ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax nit dana dox ci mission waajur waaye da nga yëg ne doxe na ko ak mbégte ndax bu agsee lu jataay bi xat-xat lu mu tàgg tàng lu mu mett métti day xam ne moo war a dalal gan yi xam ne fii la dëkk xam it suñu cofee ci sëriñ bi am cofee lu sëriñ bi ci ñun te muy loo xam ne incha allah suñ xëyee ko sàmm ko fàtte ndax lu suñ doon def ci suñ diggante biig bi teraanga ji agsee fii yàlla bu nu bind xam ne bu ma te li may seere wa kafaa billaahi shahiidan yàlla xam na ne ba deux ci guddi maa ngi ci wax ndax sama xel dem ko min abari durri an yasir maru ahlahu diin di nuyu itam sëriñ Xasan si moom itam moom suñu doon maam Seex gis nañu liggéey ñuy liggéey di jokkale rek kër yi di nuyu itam suñu wëllëre suñu xarit suñu sopp di sëriñ xarit moom fi mu àgg ci sama digg moom yàlla rek ko mën a ndax lu xew ci sama digg sëriñ bi kenn ku ko ci seere ndax fu ma mas a sëriñ bi rek moo ko jot teel fu ma sëriñ bi mas a woo wala ma soxla ci moom la jaar mu taxaw ci taxawaay bu gën a rafet ndax kilifa am na loo xam ne lu mu baax baax ñoo ko rek ñoo ko mën a mottali waaye mu am ci man cofeel koo xam ne xam yow mu ko ñii ne ci sama biir kër te yàlla xam ne ñu seq itam loo xam ne du wax mbooloo waaye moom xam na ma xam waaye fenn fu ma ko yemale ci sama biir la mut léeg-léeg mu ñëw fi sama néegu biir bi may fanaan laa koy ko di ko sant itam ci ni mu ànd ak yéen ndax sëriñ bi loolu bàyyi fi ñëpp jàpp ci fësal ko ñëpp xam kon nag moom itam ni mu def ginnaaw sëriñ bi jël lépp na suur lépp yem ci sëriñ bi rafet bi kon ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla gën ko kattan gën ko seen mag di suñu wóllëre sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Tidiane muy benn ndax sëriñ Cheikh ak sëriñ bi kenn nit la ñoom ñaar seen diggante ñëpp xam sëriñ bi moom rek la soppoon sëriñ Cheikh moom rek la doon di nuyu mboolem këri diine yëpp bu ñu xasee tudd kenn rek tudd nañ ñëpp tudd nañ waa Ñaseen tudd waa Canaba naan ci rabbil alamin mu aar ma aar kër ilimaan julil ci xayril alamin